xanaa di ubbi ko rek baatu bismillahi rahmaani rahim doolu santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax di julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko yàlla digal bégee sagoo ak santaat yàlla gi ngeen sant baax gi ñu baax boole ñoom sëriñ bi ñu naan Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ak mboolem muqaddamam ak mboolem xulafaawam ak képp baax ñu la boole ñoo jëwriñ bi ñu naan Cheikh Seydina Hadj Malick

léegi ngi naan sant ba kër wala Serigne Pape Malick nit nit du dund ci lenn ba génn àddina rek ñu bëgg ko faa yemale déedéet ñu si ñëw dafa war a continuer ginnaaw li moo tax sama diggante ak Serigne Sidi Ahmad radiyallahu taala anhu moo dugal ci moom lu bari waaye daal ci moom man ci laa gëmee réincarnation nit ku fi nekkoon ba gisatuñu jëmmam geesu rek gis ko nga xoolaat ko muy moom néew ma ko tubaab mu def waaye moom la li wala fi naan du moom mooy doomam man ni sëriñ ci daxman da mooy kër yi ceer laa ko ko waxee woon boobu Idrissa bi moo wax ko ko ci na ma ko yëgee woon loolu ma yëg yëg na ba ñëw jigi ko nuyu ko mu nangul walo loolu mu nek nekk ba Babacar ci man ñu koy dox bu baax ma koy dox bu baax baax mu baax gi mu yoni wat Abdou Aziz daw mu ñew yegal ma ko ñu ñu ko and ak soññ ma dem ko mu ne ma na nga ñew di waaw ci ne waaw ñu yalla dogal nak mu tassé ak gam go xamanteni ni rakam mom serigne sëriñ Sidi Ahmed moom itam wuy ji boroomam saytu nooru si bu alxaaji Abdoulaye Diis dénkul moom ñu koy dox ñaar fukki at ak benn ci leen mosuma ko ter ci daaw ma jiitu ko ne naa ni yàlla bu ma fi raw yàlla dogal ci daaw fay gis li ma guddee ñëw ci fajar maa ngi jóge kër Njaay ba ci gàmmu Serigne Thierno si bu Serigne si Abdou Aziz mii waroon na fa nekk tey jii itam njëkk tasewaat na ma jóg sànq ni naa njëkk boobu naa njëkk bi ko jàng ma ne ëpp naa def naa dem ci si def bu fekkente ni la ma ko waxoon ci biir dëgg la la ma yëg moom dëgg la yaakaar naa ne moom dama ko def fenn si àddina ñëw député yow mi ngi fi ma xool laaj Mansour rek gis na ma gisoon sëñ si def ba def mooy sëñ Babacar muy sa laaj Mansour noonu tey tey gisuma ko mooy yàlla tey sëñ Babacar laa gis billaahi ñu ngi de kenn dem ñëpp gi billahi la lay lay wax ñu fi ñëw ñëpp ahmed leen di moom moom tabarakallah yow moom tabarakallah ma sha allah ah gis lii mooy lii mooy mbaax wax nag yéen xam nga wax ak moom fi mu leen ñëw ba ñu gën a waaye yéene ak bëgg sam Idrissa Baye soppi ko allahu akbar moo rek moo tax mu ne mu ne damay interview Idrissa Baye yow ci fondateur la ma ne yow daal maa la waxoon nga ma teel a maa ngi ak li ci yàqu. da nga may jox trois docteurs waaw waaw kay waaw waaw kay ñu ngi woon benn laa ko daan def bu jàng moom moo ko def ñaar waaw kay dafa dox te loolu nag sama papa ma ko ñaan loolu ma man ku def xaalis soo nekk xaalis jërëjëf kon nag Papa Abdou Aziz jërëjëf ah man de maa ngi ngërëm kon jërëjëf kon damay jox sëriñ bi ndax moom ci mission la nekk mu def daa mu te alaay mosul jërëjëf ah moom yaa ngi xam ne moom dafa ñëw léegi ci kër gi la dama ci seen exemple ndax ba léegi nii am nañu ci gars yi naan maa maa ngi naan yàlla ah, dinaa ko dama gisee comme sama bopp yu bare bare bare di gis sax dama ñëw ci àlla jàpp Aziz ñaar waa am am bi droit de tour yow benn nga jëf ñaar daal la ñaar la war a jëf tey te ñaar la tey ñaar bi ñu benn la la taxal ko ci sama ñaar ah Idriss Idriss Idriss déglu te gën a gën a Idriss déglu Idriss Idriss waaw kay may wax dama yitteel trop dama koy corrigé wax yàlla ñu bari aw ci am daal ay xanaa ne man man bëri ngay kap waaye loolu kenn du ko kape man leen du kap leen dëgg la ndaxte bu ñëw Cheikh Hadj Abdoulaye foofu ko soxla soxla mu ma foofu mu ne ma yàlla ñëw ah affaire bi ñor ma trop léegi-léegi ñëw jege ko kal yàgg yàgg yàgg dara xëy na liggéey rek bu dee doo doon doo ci biir ah nga jékki-jékki rek ma Idrissa soo pare soo toog pare ba pare lu muy pare jiw laa koy wax moo tax jiw laay waxal la ok moo tax Maxtaar ki bi ñëw moo doon loxo góor rek moo doon lépp ñëw ñëw bëgg bëgg boo jóg mu ne maam kon ma ne ah ma sa papa nee na yàlla ñëw na daal di ko booy amul jox ma ne ko ah waaw ah, man sama xel ne bu ci loolu man daal am naa enveloppe am naa loolu nga xam ne doo ko doo ko xool ci biir nit ma dugg ci wala ko jiwaay dañ jàpp waaw dañ jàpp bari na ci man waaw am na léegi doo ko xool bi nanga yow doo jàpp ma dem jiwaay seet su mu nekk liyaar su xaalis bi ba am yeneen këyit yu dollars yu ci nekk am këyitu boo ko pour amagul franc français moo amoon yu yu vert yu yooyu parce que àll du ko après bi ma dem bay bëgg pare di ko sant ko sant Pape ma ne ko ko ba jékki-jékki ñëwaat bi laaj ne fii ah xaw ma ko fi ma ne ko déedéet lii ba daayira boo waxtaan bi ma nekk ma ne non El Hadj Mansour bu ci def bu seen Moustapha Jamil moo moo fi nekkoon sax ba léegi ma ne ko kon mooy yàlla. ah mais yaakaar saya Colombie bi yëpp léegi punya ma ñëw sini punya pas, mu ñëwee paas ma bëggee fekk ba amee dara waaye moom lu mu jox ma kii léegi-léegi waaye dina ma ne ko rakku yàlla. waaye loolu rek muy dégg itam yàlla boole ñu ca Makka ay mission yu bari ci lay tuddee maag moom ak moom tuurloo yëkkati ak waaw ak moom tuurloo bu bàjjal ak bu soxna Seydou Sarr bu bàjjal ak Mali ñu jàpp ko maam ak moom ñëw ci biir téye ko denc ko foofu jël ko lu rëy yaayu Maodo Lo bii gën a ji te armel yooyu rek bu denc aseetu aseetu Sarr aseetu Sarr bu sama astu si foofu lañ ko denc ñoom ñu ñëw يا ممي من ضمنكم مهما عشت سعيدا عشت سعيدا ومت سعيدا وستبعث سعيدا ان شاء الله انا كنت المفروض انه مو تتبع كترانا لانك تتبع كترانا بيديك وانت تتبع كترانا غير ربكم في مغنية انتم راب حبيب سيدنا شفيع الحاج مالك قلنا ادينا كان خمطوا على جمنت دوجي تاع دي دوجي تاع افيون دي واتش فيك ني فرنسا ما كل فين الاول بمو يفسد ñu wax moom téléphone su papa mu ne ah kay tax mu magal leen kay seen doom la waaye ndax mu magal leen ko mag mu lay rek fa nekk ñu koy ñuy waajal góor gi di ko dugal ci kees gi pour indi ko Dakar waaye mu taxaw ci taxawaay boo xamante ni ku bokkul ci famille bi mu ne la génn benn man suñu yeeg mu ne lu amul seeti baaxul yooyu ni doomam yi ni moom fa nekk man maam Ousmane eh, mu lay ko sëñ Habib Pape Sarr ak Hadj Mansour ak Habib docteur Fatou Seye ñun ñii ñoo defar sama bàkkaar yi ba dugal ko ci xeesam yeneen daje nag yu bëri yoo xam ne ci livre bi mu ñëw kër ñu bëri tuur ci moom dama toog ci Abidjan wala ma fekk ci conférence bu rëy kon ni ngay dox ci diine ji yemul fii rek kon ante mu jënd dal sama bàyyi moom moo la ko ne araba ne ne mu ne man su man mu seqaloon ne am bëri maa wala di. attaque yi zirkulu kil mahmoud المحمود مشكل مسكل من عنبرين وحوت moom nii moo ko joxoon maamam ci nag maamam mooy xasida bu réy ba mu seqal yi nii lii cocktail la min anbarin wa uudi boo xamante ni anbar la ak ruut ci wàllu kër. ataabu fil xuluqil mahmud. alaaja bu ko jëlee cocktail bi mu ne ataa indil na ma ko. kan moo la ko indil mu ne ko zil xuluqil mahmud borom borom jikko ji yàlla gërëm. kooku moo koy indi borom jikko ju rafet ji moo koy indi xafiduna muhammadul mansour xam nga ni ko mooy kan mu ne xafiduna suñu sëñ bu baax bi muhammadul mansour laa ji mansour la man sawru baynal wara miskur laa ji mansour moom nga xamante ni saa yu ndoxam jéegoom yëpp wala ñu muy demee ka dikk baynal wara ci biir mbokk bi ak ci biir nit ñi ak ci biir assemblée bi mashkuur yàlla gërëm la sopp na min makkati xayri biladillahi moo fu mu ko jëlee mu ne fële ca màkk foofu gënal yàlla masxati masxatu fi xayri xalqillahi masxati ah ah loolu sëñ bi bu leen moo jàpp ñu ko ah kay ah kay tey dina ko yàlla la loolu bu leen moo jàpp keroog mu sakkal boobu mën na sëñ bi yónni max na lay mara ko yóbbul keroog moom la jàpp daal seen fii ci pomme ma ñëw taxi ci góor gi dafa ah, sëñ Mansour leen mu ñu amul yóbbul te mu ñu jox bu ñu indil mu ne ñëpp génn ñëpp génn nekk maak moom ak neymar rek man ko ah yëkkati mbir mi ni ko kat sa sët ba fa tabaarakallahu di sax Seydi Mouhamadou Mansour moo ñu yónni lii ñu ne la ko jox sa hadiya mu ne ah mu du xool gis mu fóon bu nekk ne ah moom yéeme na fi li ma ci gën a yéeme nag dafa ne li ñëw bii ngeen ñëw ak lii ngeen indi dal na sama xel ci la am yàq mun ndax lii ngeen indi ak fu mu jógee ak ko yónnee ak ñi ko indi sama xel dal na te te mu sekkal boobu ne min àndal wa ud ud boobu ne dañuy suur ci kaaba gi ak ci ak ci baat bi ak ci raw rasul laay parce que boobu dañ koy gis fu mu jële la def men màkk la ma ko jëgale ba booy man fatu rasulillahi masakuna su tay benn bay laa bëgg nga la ma ko rek mu ñu dem saa na taxaanawu منصور منصور والرفة والطاعة وإن أقاله السعادة بلا تنامي باكري garab daa boobu gars yi jàpp leen ci boobu ñu am waaw garab la ñu di kama bëri waaw taw nee na ci mbaax ak ci tabaraka la macha allah ànd bu ñu ànd bu rafet war rafet war rafet ak ci ci ci ci ci ñeewante nit ñi ak mbaax biir. waaw kay ak modeste. oyof baax modeste wàcc lool. saada saada c'est saada c'est la c'est la damee damee. akraamahu képp mu bokkal demam. li may laajee ku la wax mu ne bilaa tanaazui kenn mënu ko werante li may ataala umrahu azizil batin kon nag man maamam abdi maa koy ñaanal ataala yàlla guddal umrahu umrahu dundal nga al azizul batin moom yàlla ma nga xamante ni nii mooy baati moom i des nag bu jóg mu ku mu ku mu yàgg nga yàgg lanaa duma saraa alal buraq waa kay ci teg ca la abdi abdi ubbi nee na ubbi jaay yi man saraa maa ngi koy war man alaaji abdi di ko ñaan si barke nga xamante ni yéeg na nekk jaam alal buraq di nee ma nee Mansour Sy ma nee na nga dund te wucc min kulli ma tashaahu nee na ci lépp loo leen nag ñu ngi ci garanti bi jaahi man ilahuna ñu la koy ñaanal ci barke kooku nga xamante ne yàlla dégg ko مسؤول تحسر الرحمن يكفيك ما تشاء من الشيطان مسؤول لا تتكل قط على خير waay bul dem waay nee na bul wéeru ci bul njëkk sama waay la bul bul bul wéeru ci gars yi. boo teg ba kenn bul wéeru ci kenn soo demee ba ñëw daal mu teg la am na loo kii. nee na yàlla nee na ku wéeru ci man. وهو حسبه التكل عليه بجاه جدك بجاه جدك التواوني وجدك من لغة Nyari الكريم nyari maam la am ñaari mari bi mooy am mooy mooy borom ñaari mari moom malik sall ci lour ak moom malik ci tiwaaw ñu fa la jëf ñaar nak di jaay ja tay ci sa barke ñaari maam bi ban mo ko ak tiwaaw bi ko le ci tiwaaw won ko am na ko ay ak maam jële ak karim kenn Mataros waxtu bi la waxtu bi la waaye bàyyi naa ko yëgale waaw nasaraka nasiru loolu rek doy na ñaan boolaay ñaane doy nasaraka yàlla na la may ndam am nasiru kay maye ndam yaa man suuru yow borom tam li nasran azizan innahu qadir nee na ndam boo xamante ni nag ndam lu mag lay doon lu tax mu ne innahu qadir moom mën na ko moom yàlla kon nag moom xam naa tura xalifatan min jaddi nekk nga ko maa la koy wax ne yow yaay hamzatu wasli bayna al ajdaadi wal ahwaad hamzatu wasli mooy tere di ñëw ba nga xamante ni mooy longu bi ci kër Cheikh Al Hadj Malick soog na yàlla rek mu dem la kenn mënu ci dara

alaama tuy jaaba gi la kon sa teewaay alaama tuy jaaba nañ ko xam am ko taxamoo ko ñàkk ko taxam ko moo ko gën lii ma ubbee ne gaa dem ñu pen ñoom ñëpp a ngi alaaji maa ngi nii de sëriñ Babacar ak alaaji Mansour ak Dabakh ak de sëriñ Habib a ngi nii toog baax na jàpp leen si daamet ma la ñu suuli dem ngeen yaakaar def na fenn ko ma gën a billahi ñu ngi ci dadkay jërëjëf sëñ bi yàlla ngeen fi yàgg te wér yàlla ngeen fi yàgg te wér may ko may ko may ko